baax di leen ziar muy Dakar live univers info ak fi nga xam ne moom moo di Xaas TV euh, tey nag ñu nga xamante ni ni moom moo di Soumboulou du ñàkk itam ki ñu seet si nag moom moo di papa Xaas comme ni mu koy waxee ci jaral na ma Xaas may sam papa euh, tey dinañ waxtaan ci li nga xamante ni moom moo di korité bi waaye tamit waxtaan ci relation am ak borom këram du yàgg dañu koy bàyyi rek mu nuyoo ajaratu yaa ngi jóg <laughs> sant yàlla alhamdulilah ñu ngi sant bu baax Mm-hmm. tey mu nekk bisu Korité ñu ñëw ginnaaw bi ñu la baaloo ax ñu fekk la nga toog ak sa borom kër nuy dundee bés bi tey sant yàlla alhamdulilah jigéen ju nekk loolu ngay ñaan kon ñu ngi sant yàlla bu baax noo ko dundee tey bégte ak bànneex <laughs> moo tax ñuy dëkkee sant yàlla am na solo waaw ndax defaluñu ko lu waral mu ngi may mbégte bi donc euh, ñu ngi sant bu baax d' accord ñu gis la ngay jaagar jaagar yi yaa ngi koy toppatoo mu def yoonam bu baax yow tamit nga xaw koo jàppale ci ci or yaa ngi nii dima dima waa lépp moom la <laughs> <laughs> lépp moom la waaw d' accord mhm. tey wax euh, sa ak sa borom kër waaw euh, relation papa doom relation mag ak rek relation jëkkër ak jabar vraiment ñu ngi sant bu baax hmm. di ñaan yàlla dolli ñu sutura boo amoon témoignage boo ñu defal ci xaas lan lay doon parce que dëgg la ñu ngi koy gis ci écran yi dëgg la ñu ngi koy gis muy def ay interview ak yi ni mel di di yëkk ci ay kàddu waaye peut-être ba tey sénégalais ñenn ñi xamaguñu kan mooy xaas euh, tey boo ñu doon wax rek euh, kan mooy xaas. ni mu mel noonu nag ci biti noonu la mel ci biir ndax nit ku sedd la nit ku dal la nit ku set la nit ku am diine la nit ku am lislaam la nit ku fonk doomu aadama la macha allah. d'accord euh, mu nekk ko ci beneen wàll. Euh, tey Soumboulou bu seetaanee ci réseaux sociaux yi euh, gis euh, ñenn ñi di xarab borom këram naka la koy dundee. ay don't care man loolu kii yu ma ko l'essentiel man maa dëkk ak moom maa nekk ak moom man maa war a xam ki mu doon donc li ci bedd bi moom àdduna moom dañoo bàyyiwul kenn sëgëm gën gi min def la nu bàyyiwul ma sa ak moom mii mu jaam bu xeebu la donc lépp lu ñu wax ci moom wax ko wax nañ ko moromam wax nañ ko keneen ak keneen koo xamante ne nii sax du yaakaar ne bis dina ñëw bañ wax ko ko donc. loolu yëpp ci àdduna la bokk kon ci àdduna lañ koy bàyyi lépp rafet mhm. seen complicité lan la <laughs> moo mooy li ma la wax sànq boo am diggante papa ak doom mag ak rek jëkkër ak jabar moo waral complicité boobu. d'accord moo waral euh, ci biir jaral ma jaral nga ma ngay wax ni xaas mooy sama papa. waaw dama bëggoon moom dama doon tiital sama wujj bi pour mu xam ne sëy boobu noonu du gaaw a tas. <laughs> waaw ndax <laughs> dëggoo si kon sëy boobu du neex a tas waaw ndax dama gis nag yu bari yoo xamante ne da koy def di ko defal ay nit ma ciy teg sama bët donc euh, sant yàlla alhamdulilah. d'accord am na solo ñu ñëw ci série bi muy série jaral na ma parce que gis nañu ki nga xamante ni moom moo di xaas jot na wax sax bi nga xamante ni dañ la soxla pour contacter la nga bokk ci série bi dafa waxoon ni yow yaa nekk moom moo nekk manager bi alors lan moo tax tey nga jël euh, responsabilité boobu gàll ko ci xaas. gàll moo ko yàllaa ko ko jox moom moo sama lépp mooy sama moom moo moom moo yor sama responsabilité lépp moom mooy moom mooy sama cislaay donc euh, lépp lu mooy dugg moom mooy jiitu ma topp ci ginnaaw. loolu c'est normal. Mhm. mais kon xaalis bi da ngeen ko waaw <laughs> waaye moom na dafa gore da koy bàyyi ak man waaye man tamit du ma gën a gore donc euh, mooy loolu lu nu am dañ koy bokk. Mhm. Mhm. d'accord ñu gis euh, Soumboulou euh, am absence bu yàgg maanaam nekkul ci li nga xamante ni moom moo di wàllu liggéeyam sa tey ban jàngat nga ci def par rapport ak bi nga xamante ni tout le temps yaa ngi doon tourner nekk ci showbiz bi nekk ci tournage yi. waaw dama xam ne yàlla li ma mayoon peut-être nangoogu ko maa ngi maîtrise la ma euh, mënoon maa ngi koy mën ba tey donc euh, sant yàlla. d'accord mhm. ni la Sénégalais apprécié ci série bi noo noo ko gisee. non ak salaam alhamdulilah dañuy sant yàlla rek. Ah, mhm. bi nga ñëwaatee Soumboulou jàppaat bës bi est-ce que jéemoo sax ki xaas war ko ni ko temps yi maa xew yow xaw ngaa xew tuuti. maara day taali astafurlah moom du xewi mukk ndax mooy sax ci man du xewi ndax mooy sama kilifa. soo ma diggante moom amul loolu rek kon daal moom moom ngay jiitu mooy xew mooy <laughs> bàyyi soxna jaara donc euh, moom mooy jiitu rek ma topp ci. Mhm. tey ban message ngay lancé euh, sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan rawatina say fan. di baalu ñëpp ak di dellu di baal ñëpp ak di sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp jàmm ah di waaw nañuy dox ci jàmm nañuy wax jàmm. Ah. vraiment maa ngi ñaan ñëpp daal maa ngi mm-hmm. ñaanal ñëpp jàmm. d'accord mais mais nga woo xaas dama taxaw fii parce que dama gis nga def jaune ci loxo bi xam nga def ko ci ci ci baat bi xaas noo gisee su mbul ni mu solo. <laughs> yaa ngi ree sañ sa ah. ah nga ne noo gisee macha allah daal moom day am kersaay apprécié bàyyi jàmm. <laughs> loolu laa xam ma koy sol ma ne ko yow doo ma apprécier mais xam naa ne ci xolom bég na donc c'est l'essentiel ah. moom day am kerse lu bari bari bari mooy nit ki boo ko xamul rek xamoo ko kon daal sol ba pare ne ko mais da am kerse apprécier yaa day am kerse bi xam naa ko xam nga yow da ruube nag <laughs> dafa mel ni daal doon madame Diop yombul ah, si yomb na yombul mais noonu la sëy moom yomb na yombul waaw mm. ah, xare la moom mais sant yàlla yàlla baax na mais ni ngeen di xëccoowee soxna jaar est ce que doo leen ko wàññi tamit soxna jaar man dañ koy xëccoo <laughs> dañ koy xëccoo mais soxna jaar moom moo ko choisir moom <laughs> moo tax léeg-léeg damay mer ndax soxna jaar dafa choisir papaam donc eh, bu tëddee nelaw sax bu ma ko xëccee sama bu lay jékki-jékki dem ci papa papa mm. papa ci biir nelaw bi ma xam ne donc eh, ah. loo xam ne yàllaa ko def la kenn mënu ci dara donc bàyyi naa ko soxna jaara maa ngi waaw maa ngi xaaru beneen waaw <laughs> solo si maa ngi lay fay macha allah jox maas nag solol na ma xam nga loolu di profité nag di di baalu ak Sénégal yi yëpp di leen baalaat di ñaan suñu réew yàlla def jàmma jàmm ah. yàlla defal la jàmm defal ko univers info ah suñu borom may leen ndam yéen it ci liggéey di yëngu yàlla yombalal leen ko xéwal yeeg lépp saawaan baawaan ci barke yonent mm-hmm. c'est non apprécier ma ne moom zone bi mu def ci baat bi ak zone xam nga zone moom bu ñu ko la loolu signe la ah loolu la boo tax ma ne ma sol sol zone rek jàpp ah, xam nga gars yi fi ñëwoon sax xam nga ñun daara lañ yor dèjà kër gi daara la ku ne ngay gis ku ne ngay ñëw boo amee soxna soo xam ne exemple moom da ngay gis ni dafa ubbu feeñ ci kër gi mais naturel am na sa moroom naataango yam bi fi ñëwee tey ñoom ndariñ ne naturel xamul woon nii la mel ndax kersa pour bi moom naturel dafa bëri man bu dee tooñ man maa ko daa ci wàllu xam nga rek ci biir kër yaa ngi kaf yaa ngi ah, ah, mun lekk nag moom tooñ non daf mun lekk moom lekk moom moo ciy nomba woon moom yee macha allah <laughs> boobu moom ah ku ko ciy jàpp-jàpp aussi waaw bilaay bilaay dèjà dèjà bi may dem di julli ji rek la nit wàcc ci oto mooy malade yooyu nga fekk ci kulaar bi may dem di julli ji dama sax yéegu jàll bi wàcc mënu sax nga xam ni dèjà nit ku nekk ak nattoom defe naa su ma xëy su ma nee la suba ak léegi maa ngi saafonte parce que tout temps sa kër mënut a wéet yéen ngi ñëw di ziar si ñoom ñëw di baal ak comme ñun niñ ko demee def te man dama benn habitude bu ñu xëyee par exemple dem julli ji da ngay ñëw tooñanteeg waa ko daan defee mais booy am tuuti rek da ngay xam ni yàlla nañ yàlla moo mat a ñaan day yàq sa bis da ngay xam yow yaa ngi dund mbégte mais li tegi ci suuf di après métit boobu rek mooy téye ci soxal mais à part ça ça xëy na bon ñu defal ma meew boole ko comme li maas nu barkeeloo rek ma ndekki ba suur dem julli ji mm. wala ay malade lañ bi may dem di julli ji juste ci lañ koy wàcce ci oto bi longu ko muy dugg ba nii may waxee gisaguma ko te maa ngi ko ñeewantal nag pourtant ba may julli sama xel ak ci moom bi may wax ni may waxee ko sama xel parce que tey xoolal njabootam bi mu bàyyi est-ce que njabootam ñu ngi julli ci jàmm parce que tey da du mag la léegi bu dee ay doomam ñëpp xam nañ seen yaay ba tollu niveau bi kon ñooñu nekk loolu rek day am tuuti ndeysaan loo xam ne yërmande lay doon daal. Mhm. d'accord ni mu bëggoon xam xaas korité ak korité la <laughs> ak mu ne laaj laaj nga lu sori ak lu soriwut di waa xam nga euh, nit ki ba ci yow ak keneen ak keneen toujours loo nekk di dund moment bi da ngay jàpp ni moo dàqoon moment bi parce que nit ki boo génne ni lépp lu am yàlla la da ngay daal di noppalu parce que jamono boobu bon tout le temps doo wéet ñaa ngi fi fees dell parce que man ku ma xam-xam ni fu ma mës a toog foofu day fees dell ba nii léegi nag da ngay gis ni jamono boobu doon na gisoo soxna si mais teewul yaa ngi dund dund ak say xarit dund ak say nit dund ak say am di jàmm ñoo xam ne saan dañuy jógee fu sori ñëw uniquement pour jour korité lañ ko gën a mën a gis parce que problème boobu lañ am ba ci suñu téléphone da gis koo xam ni waa Europe bi ñoom jour bi lañ koy dàq dañ naan wóor nañu bis bi du liggéey pour nga xam ni ku ci nekk ak problème am mais bokkul na xam nga tey boo booy doxee benn tànk ba beneen tànk ñëw doole ko taxawaay bi day gën a dëgër macha allah ak ak bien sûr waaw loolu ñàkk waaw. mais xam nga Sénégal dafa tollu dëkk boo xam ni booy def di sóor nit ñi doo dem yaay booy ku ci nekk ak xelam ñii ñu ngi naan macha allah ñii ñu ngi naan lii la ci jublu waaye léegi kanaan lool la ci jublu moom naturel noonu la mel gis nga toujours ma dimbali la ci butéel boo gis rek couvert ga moom la ci biir butéel ba moom la couvert gay xëy nit ki li mënoo génne lu nekkul ci yow lu nekk ci yow rek nga mën a génne ji nga safaan boobu ngay wax daf lay wóor ni kooku safaan boobu la gis nga ki saaga ndey bu ko meree uniquement moom noonu la mel am na ñoo xam ne boo leen doon rey seen gémmiñ gi du génne saaga parce que xamuñu ko moo tax toujours man damay wax ni damay jël contraire ay sens contraire macha allah non xam nga tey euh, Sénégal fësal lu baax moo gën fësal lu bon tey da ngay xool lu bon lu ñuy fësal ñëpp dañuy daw dem uti ko pourquoi léegi boo nekkee ci soxna nga ne ci jàmm man koo fësal ngir nit ki xam tey bu ñu indee fee safaan ñu ngi ci jàmm nit ki war a xam ni kon te kaay moo la de bëri na tey ñoo gis ñu ngi fësal ci sëy wala lu mu doon problème sëy bu dul am problème amul mais dafa am loo xam ne gis nga boo amee ba pare après lu ngeen di réglé war la mu jeex tàkk mais du lu ngeen di téye jëmante ay kii jëmante munul nekk léegi loolu nga ciy jublu ba nga xam ne tey par exemple da lay ni tey nit a xuloo woon ak jabaram gis ko ku góor ki dina am nu mu ci jàngee ku jigéen ci am ni mu ci jàngee comme yow ni nga amee formation noonu la ñu ko jàngale lu ci jiito ah parce que te it ngeen bàyyi xel du man maa yor compte man sama la de yàlla xam na ko si mee rek kaati mag eh, alaaji Touré man des fois sax nit envoyé ma xaw ma ci dara billahi di si laa ilaha parce que bu doon safaan dama leen wax lii bu ko dugalee te duñ ko dugal ah doon safaan dama leen wax lii lii bu leen ko dugalee mais ñoom da lay won moo gën ñuy dugal lu bon mais bu dee ay yenn yu ñàng yi moom Sibère Diaw moo koy dugal Diaw mais à part ça moom non non sama kër yi daan lu baax euh, euh, jël photo man it ma bind kii laa bëgg rek c'est waaw waaw loolooy àdduna ah waaw moo tax ma war kay d'accord ma tey àdduna noonu la rek nit ku nekk lépp la bëgg da koy delloo rek seex bi noonu la parce que nit ki ki ko bëgg da koo sonal te jëkkër ak jabar bu ñu bëggantewul kan bu bëggante nag soxna si ki nga bëgg takk ko mu ñëw di la sëyil bàyyi léppam ñëw di la sëyil yàlla may leen ci bant ngeen bokk benn ba bu ngeen bëggantewul koy bëggantewul am loo xam ne sagu sagu gu metti la rek. Mm-hmm. ba xam nga ku ci nekk ak xalaatam mooy li ma wax rek gis nga Sénégal xam nga tey da nga gis nga boobu nit a ngi bind nan ko talal sa sëy ci tel tel tel maanaam peut mu nekk conseil mën na nekk conseil peut-être mu xool waaye tey ki nga naan talal sa day fekk nga dund ak moom xam li muy dund xam li mu nekkee xam li ci loolu dafay am solo parce que tey boo gisee ñu la. ba ci soxna si jàmbur ku dul borom kër waru koo seede parce que jigéen ki ñuy jigéen ak li borom kër xam ci moom kenn xamu tey lislaam tere na tey góor seedeel benn soxna si jàmbur ci loo xam ne ah, d'accord ci waaye léegi li tax lislaam def loolu ça góor gee bàkkaarul parce que tey nit ki li nga dundul mënoo ci ay loolu nag loolu xam ne du ma ci mën a ton ndax moo xam jubluwaay bi te dama te dama maana fii sama. waaw bii bu nekkul territoire moo fi nekk di moo fi bu nekkul territoire am territoire kan la. yow foo de yow foo koy dem di sëy du sa territoire yow. Ah, ah, kon kay jarul wax loolu kay la. Ah eh euh, non yow yow fi li nga laaj ak loolu de yow daal yaa laaj loolu nit ki fa ngay sëy fa nga dëkk foofu sa territoire la. li muy def ah, mais dañ leen di ñaanal yàlla yàlla soppi leen xam nga nit ki tey lu baax mën nga ko conseiller nit comme ni ma koy defee keneen ni mu koy defee mais xam jubluwaay ba ak xam kii ba parce que dama dégg Serigne Cheikh di wax ni nit ki boo xamul philosophie nga bëgg koo atte ci sa philosophie nee na loolu xamadi la parce que xamoo li jubluwaay ba lan la kon mënoo ko tëb atte naa nag di dégg la ko ci micro bi parce que xam nga ab sëriñ na depuis ci suba ci lii lañ nekk eh, waaw ah. waaw euh, euh, yomb na yombul ci boo jiitalee yàlla yomb na yombul ci boo jiitalee yàlla ji nga soxna si mm. coow la bëri waaye loo jiital yàlla mu yomb looy dugg dugg ceeg ragal yàlla gis nga ragal yàlla googu moo lay dimbali ba nga xam ne yéen ñaar di ngeen xamante ci seen biir loolu moom solo sëy même bu dul célébrité bu kër gu dugg tey yàlla xam na ko ak yeneen yonent bi ay nit a nga koy dund lu raw li célébrité di dund yàlla xam na ko célébrité bi nag amaana dafa am benn poñ boo xam ne lu ndawam day mën a génn te kee lu ndawam du mën a génn ci rek mooy problème mais sëy moom lu ko dalee ci sunu maam yi ba tey na mu meloon lu ci ëpp parce que nit ñi ñu ngi góorgóorlu tey xam nga man damay wax ni nit ki bu dara rek am lu mu bañ yàlla da daal di dimbali daal vraiment te ñaari nit bu ñu demee ba jigéen ki jomb ko ku góor ki jomb ko kon am na lu xew xam nga image yoo xam ni yaay bàyyi sa soxna mu dem boo ko ne toogal mu toog loolu fii da amu ci te deuxièmement nit ki it boo xemee ki nga nekkan rek daal di noppalu moo ci am solo waxu waxuma la de waxuma la de wax dëgg yàlla waxuma la ak heure bu doon de <laughs> ak waa laaj waxtaan la ci lee xam nga boobu ne kon bu la tàggoo heure a doon yow heure bu ne ngay tàgg sa jëkkër ah waaw sa jëkkër mën na ko sa liggéey la ah, nest ay ni Sénégal ndeysaan damay wax ni ñu bëgg ñu baax lañ da ngay gis tey sëy bu amee rëkk-rëkk sax da ngay gis ñu da ngay xam ne bu ñu doon mille personnes wallahi neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yëpp dañuy bëgg loolu lu delluwaat dañuy bëgg ñu nekk ci am moom kay kenn ke ngay dégg rek ñu rakkaaju ngay dégg parce que ku xam ci sëy ni mu mel nga xam ni góor waru koo fawee jigéen waru koo fawee surtout loo xam ne tey wóor na leen ne yow jigéen bi fii ngay sàkkoo saagu ku góor ki it wóor ko ni it kii dañ ko muur indi ko pour mu yërëm ko dëkkal ko dëkkoo kooku tey am na lu leen liyee loo xam ne ku ci nekk yéen ñaar war ngaa xam si teg sa tànk fan kon ñu ngi góorgóorlu da nga gis tey ñaari jëkkër jabar yu toog du ñu du ñu foo ko rombee ci TikTok da gis ñëpp a di ñaanal di leen di ci kontaan ñoo ñoo bëgg lu baax mais dof bi toog fee nag naan waaye dafa wanewu lu mu def nii kooku la xol ba yàqu xol bu yàqu mënta weesu nga gis lu baax mënoo ci ni jërëjëf nga ni def nga jëlee ko beneen sens bi sa xol baax jigéen ñi ñu ngi góorgóorlu macha allah yàlla xam na ko ñu ngi góorgóorlu de góor njiit ñu ngi góorgóorlu jamono ji ni mu méttee li bépp Saalum mbër ndeysaan di wax naan mbër mi nga xam ni